jëmm yi ñu jàkkaarloo. Gaël Jigéen ñu ko jëm. ay buuj fi waaye. waaw sago rawatina boppu Sénégalais bi yëpp. ñuy sori ci wax ji dinañu delluwaat ñaanal ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci xeex bi nga xam ne moom sumb ñëpp. te jubloo ñu si lu dul luy defar suñu réew ba faw luy defar Afrique ba ma faral di wax nii ci sama gis-gis bu gàtt ma fël bu ma borom xam-xam waaye jàpp naa ni ñi seen bakkan rot ci anam bu mel noonu mën nañ leen boole ci ñi nga xam ne dañu ni wooye ay shuhada mooy ñi nga xam ne dañoo tegoon seen tànk ci dëgg di xeex ngir dëgg ba leen ciy fekk fekk leen ci ñu tey rek ñu ngi yokk ñaan yàlla leen yàlla yërëm te jéggal leen yàlla yàlla defal leen ci kër barke bu yaatu bi léeg-léeg ci condition yoo xam ne yu xaw a métti la di nuyu peuple sénégalais bi wax nañ ni wax ji mën na gudd mën naa bañ a gudd ndax dama namoon gars yi waaye dañu fexe ba tënk ko ndax jamono yi toll li ëpp ci wax mooy waxu suñu candidat le président Diomaye Faye parce que nous avons une élection à gagner De chaque compte on a déjà perdu trop de temps Moi, je essayer rek ci ñetti vous Je vais remercier ñi nga ñëpp seen seen xam parti la mouvement wala personnalité individuellement ñëw jàpp ci coalition Diomaye président te boobu jamono gisantewuñu sax ak Diomaye toog ak moom di leen wax dal leen ak jàmm ndax ñun jaay ñu Sénégalais yi nit projet lañ jaay Sénégalais yi kon su ngeen ñëwee ci projet ngeen ñëw seen projet la di ci beral loxo nag suñu yeneen ñaari candidat yoo xam ne suñuy naw la nañu ñëpp xam ko suñu diggante weesu na partenariat muy la doyen Habib Sy mi toog ak le docteur Cheikh Tidiane Dièye anam yi bëgg aborder moy li jiitu élection bi lu bari xew na fi damay wax ni su amoon kenn rek ko waroon contesté mooy man mii Ousmane Sonko ndax conseil constitutionnel li mu def ñëpp xam ne ñi ci yoon conseil constitutionnel nee na sur la base de la commune renommée moom dégg ñu ne condamnation am na ra transmettre ñu condamnation mais moom moo dem def ay investigation nee na pour dem tirer des conséquences ci loo xam loi mayu ko ko parce que loi li mu wax mooy bu dee nit sax am na condamnation boo xam ne juge bi prononcé wul la

parce que li ñuy jëloon mooy nañu fexe ba projet bi placé ay candidats te projet bi am na ko moo tax ma profité ci woo Sénégal yëpp ñu ànd ak tey ak dal ndax bu dee conseil constitutionnel dafa jël ñaar wala ñetti décision ci fan yi ñëpp dëpp ne conseil constitutionnel conseil constitutionnel te ci gannaaw ga ñu xam ni am na lay leneen lu ci laxasu yenn saa yi ëllëg bu bu defee leneen ci résultat élection yi mënuñu dellu si conseil constitutionnel nañ ci ànd ak tey ak dal d'autant que nag am na ay rumeurs yu am amaguñ ci ay preuve buñ ko amoon moom man bokk naa ci njëkk ñëw taxaw ne lii mënul dem waaye dégg ngeen ay rumeurs corruption la ñu ci dégg gum ci ay début de preuve matul preuve motax mané dañu dal su conseil constitutionnel défé yoon dafa def liggéeyam jarul jaajëf waye comme tambalon nañu def safaan ba tamit nañu du di gawantu di jiital émotion liñu wara demander tay conseil constitutionnel te diko demander président Macky Sall ndax il peut encore rendre service à ce pays ndax ki mu defoon candidat am te bëggatu ko ñepp xam nañ ni ay pexem weesu foko mëna rat koo xam ne nekk nekkagoo président de la république waaye fexe nga ba wiiri ba gasal président kamb ba tey état yëpp tegu sa loxo te lépp ay malet rek a ko moo ko lal xam ngeen ni kooku ku ko xam kon nañu gën a takk suñu digg te xam ni élection bi ku jaaree yoon gëw ni mun nañu def mooy de 60 pour cent incha waaye buñ jàpp ni c'est gagné d'avance moo tax nañu gën a fagal na ndaw ñi dem jëli seen carte d'électeur topp ci caravane yi daw baax na waaye munition bi mooy carte d'électeur la ne ñëpp jëli seen carte d'électeur ndaw ñeeg mag ñi la ñu yàgg def te mu jig ñu mooy dem voter massivement mais sécuriser le vote également te loolu ndaw ñi ko ko mën voté ba pare toog aux alentours des bureaux de vote yenn fa ba ngoon ku ñëw bu nga def naka sa noonu ngeen digaale ko moom ba ñu dépouillé ba signé PV yi ba envoyé quartier général ñëpp am seen i PV loolu nañ ko daan defee nañ ko def ñu ko ëppee ren parce que élection yi enjeu bi bokkul ak benn enjeu waaye it ñu continuer am exigence ci ñi nga xam ne ñu war a organiser élection bi may président Macky Sall bu ñu génnee ci élection bi affaire bi jaxasoo demam yomb foo mu xam ko moom xam na ay pexe ex candidat waaye su dee bëgg na un dernier service à ce pour demim deminam tane na fexe ba élection yi doon élection yu mucc ay leer nañ ci gañe ñu ne kii la ñëpp ànd félicité ko ñu xam ni bii la yàlla tudd kon dama wax ni loolu parenthèse la woon li jiitu élection yi si amee waroon contesté man bii la mais yàlla may nañu président Diomaye jàll may ñu président Habib Sy Diallo may ñu président Cheikh Tidiane Gueye Diallo kon sama jëmm amatul solo bu dul bu dul ñëw jàpp ñu dox ñu ne ah élection yi xaw naa jaxasoo reporté nañu coow li bëri te it may dalal xelu ñëpp nii fa ñu newoon amul lu ñu ëmb ci réew mi. léegi daal xale yi ne il faut ñu nettali ma lu bëree bëree bëri classement Coupe d'Afrique beeg ak yeneen ak yeneen lépp yëg nañu kon xamoon nañu la xew ci dëkk di ko suivre comme ñëpp. ca loolu ñu doon suivre dëkk ni jaxasoo yéen ñëpp dégg ngeen ay waxtaan yu am naam waxtaan yu bëri am na ay ndaw yu bëri yónni na leen ñu ñëw ci ñun wax ndax mënuloon ñàkk damay wax ni Pastef dañu am jamono ju ñu toll boo xam ne kàmb dafa am wala dafa am benn écart. diggante ñun ñi nga xam ne nous natt nañu jiite ko ak li communication jafe woon nous mënuñoo li ñu bëgg waaye ku am seetlu tuuti nga à partir de du mois de mars 2023 am na lu bëri lu ci stratégie passive. parce que projet boo ko yoree projet de société da ngay évoluer moom bu ma koy tënk ci lu gàtt rek te royuwaay ci diine gi ma gën a xam dama naan am na Makka am Madina am Hudaybiya am Fathu Makka am lu tegu ci Fathu Makka jamono jii nag ñi ngi ci mujjanteelu Hudaybiya ndax xam ngeen ku dee bi jamono jii màkka fitna la woon ba tax mënatul nekk ñu gàddaay dem madina madina métti na woon xeer yi xare yi am yépp ci madina la xamee ba waxtaan am keroog ci Xudaybiya yonent bi salaam takk ay jëlé mo fasam né namm na madina namm na makka dañuy aji ñew ba tim makka ba di gis les premiers bâtiments ci benn gox bu ñuy wax bu day biir yéefar yi takk armeneer bi su ngeen duggé ñu faagaagal mu nangu signé pacte bo xamné moko moo jural 10 ans dakal mu défaru ci défar ci armée défar ci société ba kéro bu mu jubloo ci makka mi ngi woon ci jiite armée bu mat dix mille te guerre amul fi mu ne nii nag guerre du am bu soobee yàlla ndax élection bii du doon guerre. mu des nag élection bii ñaar yooyu ñu dese état yooyu la ñu toll léeg-léeg nga dégg ne dinañu fayu

population yi toppuñu di daw ci mbedd bi elles seront très exigeantes avec nous tey ñu am bor yu ñu war a fay mooy ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci ñi nga xam ne ñàkk nañ ci cër ñi nga xam ne def nañu ay at ci kaso bi ñoom ñëpp dañ leen war a fay bor bi te naka lañ leen koy fayee mooy fexe ba gëm-gëm gi ñu amoon ci ñun bu buñ ci mës a teggi suñu tànk lu toll tarafataay kon waxtaan am na ay ndaw ñëw nañ ma gis waxtaan yi ci ñetti poñ la amul benn bu ñu déggoo la waaye def nañ ko ci respect mutuel te loolu amoon solo waxtaan nañu ci report élection may leen xalaatu leen ko élection bi mënu leen ko laaj

born to be président xam nga la ñuy wax madame yéen ñi dégg anglais loolu yàlla bind ko ci jëw kenn saa su jotee rek di nga ko def kon lu ñu mën def pour élection bi ñu bañ ko reporter def nañ dem naa ba ne samay avocat bu la déposé recours mooy rabanale bi tant que figé wuñu liste yi ndax damay bañ ñu jax jaar ci loolu pour mën a

amis du PDS dañ bu ñu nangu mukk ñu jaar ci ñoom pour reporter élection yi doyen woo leen nga wax ak ñoom 24 heures plus tard mu wax mu jox ko man ne ma wax naa ak ñoom lii lañ ma wax ba keroog barki démb lu ma taaree teel a dégg ñu ne doyen Habib Sy dafa bëgg a déposer rapport ci laa ko wane ko doyen bul déposer rapport parce que bëggu ñu jaar foofu.

mooy ñu ngi ci kaw suppléance te boobaa dañuy rebattre carte yi kon bu ngeen gisee may leeral yi mooy wax ju bëri la Sénégal nag moo di demee wax ju bëri la da ngay gis ku bu baax xam yaay kan mais situation taxaw mu mën a dute ci yow loolu mooy Sénégal nit nag boo ko wóoroo da def ni Aboubacar defoon. buñ ko nee sa waji ji nee na dafa dem démb rañaani saa ba yëpp commencé duti xam nga ne su dee moo wax deug tafsir waye nit boy wolu tànk yaa koy gis ñak ko gis mu a jaaral ni nga ne non non koku da fay jum dum mu wax tegu ko fenn te ñu jaar ba egg si fii wax ni amna écart bu am suñu diggante c'est tout à fait normal moy passif dañ ko songu pendant longtemps mu avons ci position défensive ba ñu gis woon lu dul xeex ak défendre bu ñu continué woon ci fànn googu kon Diomaye nekk candidat j'ai dû prendre beaucoup de décisions et je les ai prises seul parce que mënu ne suis kenn bu ma ci ci rek projet bi tey jeex na pas évident ci les deux faces la pièce toll nañu foo xam ne ñenn ñi élection rek lañu gisoon élection élection élection ma leen waaw dinañ dem élection bu soobee waaye dañ ñoo song métital ñu nangu ñu bari bëri si ñu lu mu mën a def ba delloo si li ñu rek dinaa ko def tey delloo si suñu parti politique ñu doon wax ex passif ex passif léegi nañ ne passif. tey delloo si wuñu suñuy éligibilité ba ci sama bos man mii. waaw na ñu taxaw ba ci opposition bi ne d'ici deux mille trente neuf Sonko du nekk candidat. yàlla ne samay biir noppi naa ci bien. waaye tey des centaines et des centaines de nos frères et sœurs qui souffrent dans les pays.

peut-être ñu doon wax loolu xamuñu man de prison suite ma ko suite chambre salon double climatiseur télévision fa gis sama 300 mètres carrés di doxantu fa sama vélo di pédale est-ce que xam ngeen ni président pendant 11 ans 11 mois 9 mètres carrés de ñu boole ko yeneen ñaari ngeen condition

moo tax nit boo àndeeg moom léeg-léeg da nga koy wóolu doylu ko buy def xamoo teeyal ba xam rek loi d'amnistie bi coow bu ne dégg nañ ko ci muy deuxième poñ boo xam ne discuté nañ ci dañu yow wax ma loi d'amnistie may leen soxlawu ma loi d'amnistie su leen doyee vous abandonnez les charges parce que xam ngeen ni taxawul ñu def nool lieu nit ñi ñibbi seen kër ah ñu ne dee rek ñoom loi d'amnistie lañu bëgg nous suñu defee loi d'amnistie ça nous profite voyez, instruction bi ma jox député mooy loi bi interpellé ministre de la justice bu dee léeg que vous bokk na ci voté non bu dee que vous li bokk ci voté oui keroog bi ngeen dajee ci suba balaa ngeen di gërëm su message boobu la délivré suñuy député pourtant dégg ñëw nañu réponse bi leerul voté nañu non teewul waa ba jàll moo ñu andi fii ñu nekk nii tey jàkkaarloo Sénégalais di wax ak yéen kon dafa am loo xam ne dox na ci stratégie te ñu bëri xamuñu ko te merew ci kenn ndax fa ñu bàyyi woon pas parti bi ba ñuy jàpp peut-être ñoom foofu la ñu toll ba fekk ci gis-gis ak yeneen dafa évolué. ñetteel bi ñu wax mooy dialogue loolu suñu position mu ci see changé dañu ne woon kenn du teg pistolet suñu bopp di ñu dialogue loo booba jamono pistolet la woon jamono jii nag bazooka la waaw ah, naka la ñuy demee dialogue parce que ñun ku ñu xam ci politique bi ñu commencé ba léegi constance nañu xamee gis ñu lu fees suñu bët moo tax nag bu ma leeralee yooyu yëpp di wax nii te li ma suñu ñëwaat waxtaan ba leen naan andil leen ma sama candidat ñu andil ma parce que dinañu toog trois heures de temps quatre heures de temps je lui fais un compte rendu détaillé amul lenn lu ma def te ko moo ko waxee ba mu wax ma lu mu xalaat ñu tënk léegi nag weesu nañu loolu dañuy dellu sant yàlla ndax yàlla desal ñu dara de ëllëg bu ñu bindee suñu mémoire lu bëri dinañ ko xam ndax xajul fii mbir mi moo raw film film ko koy xajul fii de waaye dinañ ci yegg si ñu war a dégmal nag lu am solo muy élection bi Ok, yi élection dañ koy gagné allah. ki discours nga bu campagne may lancé appel nag Sénégalais xam nañ ni bëgg ngeen ñu lool xiif ngeen ñu lool da comprendre sept jours de campagne de xaju di leen koy ñaan rek ku ñu jaarul goxam bu mu mer ku ñu taxawul goxam romb rapidement bu mu mer parce que élection boo amee 20 jours sax mënoo def le Sénégal waxuma laa léegi ñu dese la 7 jours te génnaguñu Dakar militants yi xamante nañu léeg-léeg nit ñi def ko affaire sama koñ sama dëkk ñun gagné lañu kon bu dee ay candidats ñoo mën a ñëw toog fii bàyyi seen dëkk ñëw toog fii. mënoon nañ ne man sama candidat bopp la maa ngi dem kon kenn ku nekk na xam ni patriotisme bi ñuy wax fii la war a feeñee dina doon campagne bu méttee méttee métti caravane la ñu a def dañuy traversé rek waaye luñ ci mën def rek nañ ko ci def mais ñuy ñaan ñëpp di daan am ci ñu ci campagne yi dañu war a jaar gis itinéraire bi pourquoi def ñu di mer naa gedd naa di tax ñëw ñu sama dëkk di tax wàcc ñu nuyu kilifa gi suñu amoon sa sañ loolu lépp nañ ko def mais su mënul nekk rek lu mënul nekk rek nañ ñu ko nangul te bu mu tax bu mu tee ñu gën a takk digg yi parce que avenir du Sénégal du affaire nit du affaire koñ du affaire dëkk ñaareel bi mooy dama bëgg nit ñi bu ñu waxati sax lu jëm ci Macky Sall on se trompe de combat. Macky Sall keroog bu mu nee man dootu nekkatuma candidat ñu pare moom du suñu adversaire waaye am na lu gën a garaaw fuuf mooy candidat wu Macky Sall Amadou Ba yàlla ñàkkee bëgg Sénégal dëgg dëgg dëgg rek na ko jox Amadou wallaahi yéen xamu leen Amadou

vous savez man bëgguma ñu dugg ci débat de personne léegi naa ñi naan dëkk sàngam la jógee du Sénégal yi déedéet la fii la juddoo jàngee fi am nationalité def fi tout sa toute sa classe du la gënuma koo nekk Sénégal tey ñëpp jógee ci dëkk yooyu gis nga Sénégal dëkku teranga la ñun ay panafricain lañu ay sénégalais ñu dund feneen ñenn ñu dund fii ku ñëw jaar fi mu war a jaar am kayitam Sénégal la ñun ñëpp mm-hmm. bu ñu stigmatiser kenn bu ñu stigmatiser kenn loolu baaxul suñuy natt dañu wax kii est-ce que ay loxoom set na est que bëgg na réew mi est-ce que am na compétence yi leen nag première question bi tontu naa ci ba noppi ñaareel mooy bis bu ñu ko joxee réew mi dénk nañu réew mi waa bitim réew xam nga ci sa série vidéo yi ma defoon am na yenn ñaar yu waroon génn waaye jaratu ko benn bi ci moom laa ko defoon ñi ko gis-gis nañ bi ci moom laa ko defoon spécialement mu ngi wër nag di wax yor na meñam di wax nee na ñu lay attaqué bukki nag bu yobee waxamaana Amadou Ba mënuñoo yàpp de ndax dañoo bokk di liggéey yàgg naa jël lu mu warul jël ma dafa tegal ci suuf. jiite na direction générale des impôts ma yor syndicat naa laal lu mu laal man vérifié naa entreprise bi ñu ko ay milliards mu laal ko ko wàññi ma ne ko boo ko laalee ma diggaale ko. taxaw naa assemblée nationale interpellé ko ci li nga xamné alu rew réew mi la mu salfaañe ko ngir bëgg a neex tuba bi kokku di ngeen ko jox rew da la may dee ñu ne compétence compétence la expérience expérience la ndax dal alu rew kon may lancer aussi un appel kilifa diine yi parce que gis ngeen li ñuy wër di nga am dem ci même rangeen bi rek lañuy jëlat dem ci kilifa diine yi waaw réew bi mu ngi en danger dañ ñoo rax ba ñoo leen rax ñun ñu newoon ñun ñoo leen rax ñoom ñoo jékki-jékki mel ni xal bu nekk seen loxo ñu kii sànni ñu ci ak terroriste yi nga ko génne nii ana ñoo ñu rax kii gëmul tarix la kii gëmul wax waxatu ci yooyu ñu man tey moom la ñu jël pour koo def ci Diomaye manipulation bi dafa doy ku am sa programme wax ko sénégalais boo amul programme demal nga toogi yooyu ñuy wax ay waxu tampale la bi may nekk fële li ma gën a métti ci communauté bi nga xam ne ñaari président yi génne woon na ko du le fait ñu wax nañu def li nañu def li mais le fait ñu dugalal leen dugal leen ci débat boobu naan y a des gens qui manipulent les jeunes sénégalais yu ne ñu ne leen dañuy reporter seen élection ñu ne d'accord ñu sénégalais yëpp jóg Sénégalais contre Abdou Diouf contre Abdou ci nga Sénégalais beaucoup de respect pour ces anciens présidents mais ñu leen dugal sax ci il faut ñu respecter peuple sénégalais bi dafa mature egg xam choisir ses combats kon concentré l'essentiel le plus grand danger qui guette le Sénégal aujourd'hui s'appelle Amadou Ba te jàpp ni lépp alal le faire. Je vais interpeller encore une fois le président Macky Sall parce que responsabilité là. la le schéma que ñu avons, ngir bëgg a def li ñu def ñun xam schéma que ñu avons, pour bonne élection nous avons gagné nañu à tel score Nous avons gagné FDS yi ñu parce que l'élection, bu ñu xasee ba ñee score c'est très difficile c'est un amour correct règle cette question. Ta responsabilité est la moi, suis président de la république désormais nous avons un seul adversaire Nous savons que ni l'élection 15 de au Vous réew ko am fi toute sa trajectoire nous voyons, nous avons jënd fii jënd fële foofu la yaakaar ni mun na koo jaar ba dégg monsieur le président daal moo tax il va falloir qu'on fasse un large front un barrage contre ce qui se trame élection bi incha allah dañ koy gagné di ngeen dégg président Bassirou Diomaye Faye le jour de l'élection est le premier tour Vai no moletom. Merci beaucoup. Madame, les recommandés, merci au français, parce que je ne peux pas président. li may daanelee mooy ci candidat xam ngeen affaire politique dafa doy waar ñun ñëpp ay nit lañ kese léeg kenn ku ne ci ñun dina ay seytaaneem muy sa muy ay nit yu ñëw di wax ay êtres humains lañu dong la nga nekk situation yoo xam ne. waaye est-ce na ma joxe lii bu kenn ko dénkaane nanga bi ñu di ñëw di wax bu defee soo wetee ne a'uuzu parce que bu ko nga gis sa ma def man mënoon na tombe ci biirum su lay jóg mi ci Abbas Fall mi wala ci ci Cheikh Tidiane Dieye wala ci keneen ak keneen doyen Habib Sy mii dafa si ma la bu mu jot a ñëw Masséden Koli, c'est un homme de mission. À son âge, c'est un homme de mission. parce que la force c'est seeti ñu waxtaan Vous ne ko bu dee yàlla nattuñu nañu amuñu candidat passif Moi, na doon doon candidat mais ce sera pour ceci et ceci et sera Maintenant, vous bu soobee non, non. man boobu bi sa saa su dara ci mom su ma ko nee léegi léegi mo mag fouf mun na nek sama bay waaye lu ko wax mu defee ko non c'est un homme de vision ma seedeel ko ko suuf noonee laa koy seedeelee docteur Cheikh Tidiane bi nga xam candidat la moom dem rek ma koy seetaan ci temps d'antenne gannaaw bi ma seetaanee bay bi ak tagal bi voilà dafa mu dem dañ ngeen daf fay jiital son premier temps d'antenne dafa régler problème tàngal deenu Diomaye Faye nii kon di leen félicité bu baax ci loolu waaye di wax ni mënoon na tombe ci kenn ku ne ay da buuj nii mënoon na nekk candidat grâce su ko neexoon mu jëli keneen ak keneen mais tombe na ci Diomaye dama ko tànn nag wax naa leen ko ci vidéo dama koy tànn yàgg na te xam naa li tax ma tànn ma gëm ni Sonko mooy Diomaye du waxantu du waxantu waaye Diomaye mooy Sonko du waxantu bi ñu mujjee waxtaan avant dernière fois bi parce que démb it ñoo ne woon ba ndogoonoo ci la colonel bi ñëw nañu da ngeen di génn ma ne ko saa dama defari sa bagage da defar sa sécurité <laughs> mujjee waxtan dañu tok waxtan lu yàgg ñi waxtan ci li nga xamné mi ngi am ta ni ñi yaakaar ni mun na andi féwlo suñu diggante mu wax ma lu am solo mu né mo président wallahi pour soro dox sama diggante ak yow arrêté parce que dama yëkëti doom tuddé ko dama damaa bëgg doom boobu dama bëgg doom boobu ila yow mi din la koy jox comme exemple kon suñu politique naroon boole ba bay politique ma xam ni dëgg la ci moom ñaareel bi mooy nit ñaa ngi ne comme bëriwul wax bi man nag Diomaye su ñëwee ñii soo ko sax moo tane woon ci ñoom waaye ma ma bëgg a ni Diomaye gën a nooy fuuf si ñoom ndax sama réew bu gën jii li mu nekk ñi ma xam-xam nañ jombaay dañuy waxtaan benn jour maag moom ak Birame sama kër boobu affaire yi tar na métti na ma ne ñii di laata bu ñu jëlee affaire bi jombaay dama tegal ci suuf président loolu kenn du ko fi def fii amul chasse à la sorcière amul euh, fayantu amul et cetera keroog ma leen andi leen ma jombaay mu ñëw ñu waxtaan waxtaan quatre heures temps ma koy ne xaaral ma seetluwaat ko ne ko Diomaye ñii il faut lii dafa yomb quoi ñii il ñu def nii mu ne mukk ci àdduna président mukk ci àdduna bu ñu def erreur yi ñu def ñu. muy lu ma bëgg a yokk ci seede ci sama digganteeg moom waaye di wax askan wi nii. tànnuma ci hasard ndax dafa di sama rakk di sama xarit ñu ànd lu yàgg ma xam li ma xam ci moom nee naa ko Diomaye nit ñaa ngi ñëw di wax rek li muy teel télévision mu ne ma président man dama am kersa ci nit du ñëw di wax ma ne ko di ma la déglu waaye ku mën a dugg sama nopp bi ba wëlbati sama xet gisagu ma ko loolu ci mbindam la bi may daanele nag gannaaw bu ma dénkaatee Sénégalais Diomaye Diomaye jëmmam amul solo sama bos amul solo donte dañ naan élection présidentielle waaye projet la ñu wax ak Sénégalais am na ay aspects ci suñu programme boo xam ne nit ñaa ngi ci bëgg a wax ji bëri moom dina ci leeral waaye dina doog ca njëkk mooy nee naa ko président Diomaye mbirum

les attributions C'est ce mun nañ ko am sans poste premier ministre sans poste vice président Le boo jëlee réew ni France en 2007 modèle bi la ñu amoon à partir de 2007 a fait cette réforme mais c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation alors que nous, dañu resté ci c'est le du gouvernement qui coordonne et exécute moo tax une réforme, ay réformes coow yu pour le premier ministre bi mooy dem bu charbon su paree bu yóbbu mu il y a un soit ñu vice président mais sans beaucoup de pouvoir parce que nous avons ñaar ñoo fal jox leen ñu yem ay pouvoir bis bu ñu un njàpp mu am États-Unis vice président il est là pour la suppléance au cas où et selon la nature de ses relations avec le président nous na ko yokkal wala mu ko mais quand xam ne dafa légitimité électorale nous avons le président bi avons tolloo pouvoir nous na un problème Voilà un premier ministre qui sera nommé.

Ce que je veux dire sur la question du front CFA, parce que c'est souvent une question qui interpelle beaucoup plus les élites. Je crois que le programme a été fait dans des conditions extrêmement délicates et difficiles. Nous n'avons pas eu, nous, la possibilité d'y travailler sérieusement, parce que vous savez que quand vous êtes en détention, les conditions d'entrée et de sortie des courriers sont très complexes. Et les dernières observations qui ont été formulées même pas de candidats, n'ont pas pu être intégrés sur cette problématique-là. Mais je veux dire simplement qu'il faut savoir lire notre programme comme une continuité. On n'a pas créé un nouveau programme. En 2019, on a pris position sur la question de la monnaie. D'abord, à travers le livre Solution que j'ai présenté ici publiquement, mais ensuite dans le programme. Et notre démarche a été toujours de dire que nous sommes tous convaincus, toutes les élites sont convaincues qu'il y a un problème avec cette monnaie et qu'elle ne colle pas à nos impératifs de développement. Et qu'il faut qu'on assume nos responsabilités pour aller vers autre chose. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques. Nous avons toujours dit dans la démarche prudentielle que nous le ferons dans le cadre d'abord des ensembles sous-régionaux. Et si on ne parvient pas à faire bouger les lignes, nous prendrons nos responsabilités parce que 90% des pays du monde ont leur propre monnaie et parviennent à s'en sortir. En tout cas, la plupart s'en sortent. Et c'est cela qu'il faut comprendre comme aspect du programme. Aujourd'hui, nous avons une monnaie dans le cadre de l'UMA. Ça semble aller dans une certaine direction, mais ça va très lentement. Nous allons venir pour essayer de booster et aller vers les réformes qu'il faut. Mais nous avons toujours dit que notre option, c'était même la CDAO, qui fait un ensemble de plus de 6 millions de kilomètres carrés, plus de 400 millions d'habitants, donc un marché qui a un potentiel énorme, mais si les préalables sont réglés, et ces préalables ne le sont pas encore. Et c'est ça notre option de base. Et c'est seulement si on ne parvient pas à avoir ça que nous considérons pouvoir aller avec notre propre C'est bien qu'un détenu a le programme a, navigué une ou deux fois, mais on n'a pas pu, avant la présentation du programme, faire les dernières observations comme il le fallait. Et donc, il faut lire ce programme comme une continuité. Quand j'ai demandé à l'équipe de démarrer le programme, je leur ai dit, travaillez sur la base ressentie de 2019 et essayez de voir s'il y a des actualisations à faire. C'est une précision importante parce que des gens en manque de programme et qui ne peuvent rien nous reprocher essayer de s'agripper sur cette question-là pour équiter le monde entier d'ailleurs, parce qu'il ne s'adresse pas au peuple sénégalais. Et je tenais à faire ces petites précisions. Je me suis d'avoir été assez long. Euh, je ne vais pas faire la version française, je laisse à, notre candidat, le président Vassilou Diomaye Faye, le soin de clôturer cette compréhension. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Ousmane Sonko. Euh, sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre cher candidat et futur président dès le premier tour, Inch'Allah, Bassirou Diomaye Djahar Faye. vous remercie Je nous yi nga xam ne première prise de parole officielle en tout cas après avoir été désigné comme candidat comme porte-étendard du projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique en progrès. Monsieur le Président, vous avez la parole. dans le siège des propos du président Ousmane Sonko, saluer les leaders et tous ceux qui, à un titre ou à un autre, participent à cette rencontre d'échange entre le candidat que je suis et le leader Ousmane Sonko, qui est notre leader à nous tous. Je voudrais dans le même sillage, m'incliner devant la mémoire des disparus et prier pour le repos de leur âme et pour la miséricorde d'Allah Tout-Puissant sur eux. Je voudrais attester aussi et rendre un hommage appuyé à tous ces frères qui, dans les jours du pouvoir, pendant des mois, souvent des années, ont supporté avec dignité le poids de l'épreuve. J'ai été au Cap Manuel à un moment donné avec 37 co-détenus des politiques. Beaucoup d'entre eux n'avaient même rien à voir avec les manifestations. Mais c'est par la présence soutenue de PASTEF et de la coalition à leur côté, qu'ils ont fini par comprendre en s'intéressant davantage au projet, euh, au 2 que nous étions à l'intérieur avec d'autres personnes comme le professeur Cheikh Omar Diagne, et massivement à adhérer au projet de PASTEF en prison. Ses frères et sœurs ont supporté cette épreuve, disais-je tout à l'heure, avec beaucoup de dignité. Et je pense que ceux qui sont allés le rendre visite régulièrement